ngeen jégal ñu ci loolu ñu leen di nuyu fii ci Paradise TV ñu fas yéene ànd ak yéen ak xibaar yu ñu jot a am ci ngoon si ci ponk yi ci gën a fës. ñaari nit faat nañ leen foofu la ci coow bi nga xam ne mu ngi jóg euh, ci Faraba jëwrin bu ñu dénk wàllu bitim réew wax nañ ne commencé nañoo càmbar kii nga xam ne moom mooy Gambian ambassador bi nekk Morocco waa réewi Gambia wane nañu solu yu rafet ci guddi sanse bi nga xam ne mu ngi passé bu yaagut Gambia Volleyball Federation ba léegi ñu ngi ut ndimbal ñetti nit ñàkk nañu seen bakken foofu la nga xam ne mooy euh, Japan gannaaw bi nga xam ne suuf baa ngi doon yëngu ñi jàpp ci boppi xibaar yi. loolu moo di woon ponk yi ci gën a fés ñu ànd ak yaatal man laa Awa Gaye Boye niki eh, tey ji ñaari nit eh, ñàkk nañ seen bakken foofu la nga xam ne mooy Faraba gannaaw bi nga xam ne ñi dëkkee Faraba ak eh, Gambia Police Intervention Unit ñu ngi doon jàppoo ci xibaar bi lu mu jot wone rek mooy ñi dëkkee Faraba dañu wax ne ñi nga xam ne ñoom ñooy julakee di benn compagnie ñu ne duñ fa tibee suuf. looloo waral ñoom tey jii si suba buñ gisee liggéeykat yooyu la nga xam ne ñu ngi liggéey ak julakee ñu jóg dem ne ñu ñu duñ fa liggéey looloo waral ñii di PIU ñu génnee leen a xamee ci guddaal di Gambia Police Intervention nit ñoom tamit ñu jóg ñu wax leen ne ñu bàyyi lu ñoo def waaye nanguwuñ looloo waral ñu jàppoo be ñaari nit yi ni ñàkk fa seen bakken ñu ànd ak xibaar bi. tey fii si Faraba jàppante bu métti amoon na fi. si suba si diggante ñi nga xam ne ñoo dëkk Faraba ak ñii di members of the police intervention unit ñi nga xam ne ay mag leen si biir dëkk bi fii ñi nga xam ne waa dëkk bi wax nañ ne ñoom ak Julakeh ñoo def dugalante bi ba nga xam ne nguuri Adama Barrow jox nañ Julakeh licence pour mu tibbee fii suuf seen kër yi am na ñuñ taal seen bagage yi nga xam ne seen ay family member ñoo ko moom tam ñoom leen taal nii ñoo ko gisandoor fii nii si biir Faraba nag ñëwal na leen fii pour indil leen xew-xew bi nga xam ne moo nekk di xew fii nii si Faraba Banta. fu ñu nekk nii moo nekk kër yi ki nga xam ne mu ngi tudda fan Fansujung Konte mi nga xam ne chief la woon bu Faraba moom nag lu ñu ko tuumal moo nekk ne dafa jël bribe si ki nga xam ne moo nekk Julake pour ñu jox ko licence ba nga xam ne mu mun a tibee fii nii suuf lii machine bi gis si gannaaw moo nekk machine bi nga xam ne moo doon liggéey si yoon bi eh, yóbbu eh, trog yi ba fi nga xam ne la ñoo tibee suuf bi Paradise TV News dinañ nekk di topp xew-xew bi nga xam ne moo nekk fii ci Faraba te xibaar bu euh, bu ees bu ñu si jot dinañ leen ko indil incha allah Lamine Fall Paradise TV News. kooku moo di woon Lamine Fall indil ñu xibaar euh, mbir ci mbirum euh, loolu nga xam ne moo xew Faraba tey jii si suba. ci beneen xibaar jëwlin bu ñu dénk wàllu bitim réew ñoom commencé nañoo def càmbar ci ki nga xam ne moom mooy Gambian ambassador bu nekk foofule ci Morocco ñu gën koo xamee ci Alassane euh, ñu gën koo xamee ci Alassane Jammeh ci wax ne dafa màtta ki nga xam ne moom mooy protocol officer am di fa Bakary Jaaju Mr Jaaju teg na ki nga xam ne moom mooy Gambian ambassador bi bu nekk foofule ci réewi Morocco ne daf ko màtta ci baaraam gannaaw bi nga xam ne dafa am ab ñàkk a bu dox seen diggante. ku doon waxtaan ak Paradise TV ñu gën koo xamee ci Sehu Ceesay moom waxkat la foofule ci jëwrin bu ñu dénk wàlli bitim réew wax na ne kii nga xam ne moom mooy Mr Jammeh di eh, ambassadeur Gambia bu nekk ci réewi Morocco fu mu nekk nii mu ngi ci biir réew mi di dimbale police ci gestu bi nga xam ne ñu ngi koo def ci mbirum mata boobu lañ wax ne moom la def ki nga xam ne moom mooy Fa yi ñu seeti xibaar boobu lañ ah, dégg nañ ko waaye mënuñoo wax waaye mbir bi ñu ngi ko seet ñu ngi ko investiguer pour xam luy dëkk waaw commencé nañ you know suñ investigation depuis bu ñu déggee you problème bi dañ commencé suñ investigation dañ door suñ investigation te ba tey loolu mu ngi continue ñu ngi consult ñu ngi waxante ñu ngi you know kisi kisi ñu ngi you def lu ñu lu ñu lu ñu war a def pour xam dëkk because njiit you know foo munta nekka soo déggee dara du du mun du du mun a jomp rek nga wax ne waaw lii moo xew lii moo xew lii moo xew foog nga def sa kis-kisi foog nga def sa investigation bi you know nga luy dëgg bi ba nga ñëw wax nit ñi mbooloo lii moo xew te lii you know bu you know xewee you know ñun tamit you know you know step bi lañ jël lii mooy suñ position waaw ana bi moom ci loolu. ambassadeur bi mu fii ñëw nag mu mu si dëkk bi fii mu fii te ñëwaam bi tamit ah, si investigation boobu la bokk si consultation boobu la nekk pour ñu dimbalante ñu xaman ñu xam ñu xam luy dëkk bi. ci beneen xibaar jëwriñ bu ñu dénk wàllum mbéy ñu gën koo xamee ci Omar Diallo moom wax na ne. dina yóbbu kër faatu ci yoon gannaaw biñ ko tegee tuuma ne mu ngee jaay li nga xam ne mooy euh, toos bu waxtoom jeex wax nañ ne toos bu bii nii mu ngi ko jaay ñi nga xam ne ñoom ñoo nekka di def euh, business fii ci biir réew mi maanaam ñuy yëngu ci wàllum jënda ak njaay tey jii si euh, suba mu ngi ootee benn press conference moom moom nga xam ne moom mooy ki ñu dénk wàllum mbay mi oote na benn press conference doon waxtaan ci mbir mi Euh, Lamine Ndiaye moom moo fa teewee woon indil ñu xibaar bi. mbokki seetaankat yi ñun la waa Paradise TV léegi nag tey ñu ngi nii fii si Ministry of Agriculture Banjul. Ah, dañ fi ñëw tey ministre bi bi yor wàllu mbéy mi agriculture muy ñu ko ñu gën a xam gën koo xamee Omar Diallo tey moo ote fii eh, journaliste yi moo oote ñoo xam ne taskati xibaar leen oo na gaay fii pour ñu mu amaak ñoom ndaje ndaje bi nag li li lim ci wax wala li li tax mu ote ndaje bi mooy dafa am ay tuumal yoo xam ne dañ ko tuumal ne moom dafa bokk ci ñoo xam ne wala ñoom agriculture ñoom ñi nga xam ne ñu ngi liggéey agriculture dañ jaay. Eh, eh, fertilizer fertilizer boo xam ne eh, baaxut fertilizer boo xam ne baaxut moom lañ jaay te loolu mu nekk loo xam ne ñu ne moom Omar Diallo sax dafa jël si def si jël xaalis def si njëriñoo xaalis bi moom moo ko jëloon so moom Omar Diallo tey ñëw na mu ne moom tuumal yi ñu ko tuumal yëpp du dégg fen la dañ ko tuumal rek waaye ñi ko tuumal nag mu ne ñooy Ker Fatou Ker Fatou ñoo xam ne ñoom tam ñoom tam ay taskati xibaar leen ci réew mi ñoo ño ñoo bindoon ne moom Omar Diallo def ci bokk léegi mu ne moom defu ko ñi dañ ko tuumal te moom li mooy def mooy moom dafa dem bugg a yóbbu ñëw yóbbu ñii ci kanami loi mu ne def dina dem court dina suuñi li koo tuumal façon tuumal yile te moom Omar Diallo continué na mu ne moom xam ne moom ku déggu la moom du bugg bokka ci tria ak yu mel noonu moom mu ne li mu wax mooy moom ku déggu la te mu ne tam yëg na ne euh, office du président am na report boo xam ne bind nañ ko ne moom euh, bokk na ci waaye mu ne moom li mooy def rek mooy dafaa xaar ba loolu euh, biñ ko suñ ko ooyee wala suñ ko waxtaanee ak moom moom dina gis seet naka la moo def. tuuma bi bi wax mooy tuuma bi wax. xam nga man dama respect authority and rule of law and process if the president's office instituted an investigation ñu ne dañu war a investigate ñu seen fi ISIS foog naa ne su dee man responsible leader la dama war a xaar bañ ñëw nañu gars yi préparé seen report lii lañ def report bi te foog naa ne kon report boobu war naa dem cabinet balaa ko di ci jot because it was the president office ñi nga xam ne ñoo wax gars yi ñoo investigate agriculture and other institutions they went throughout the whole country on this investigation léegi su dee ñoom dem nañ ba def investigation ba gis li ñu war a gis design ne lii lañ war a am gis nañ lii gis nañ lii gis nañ lii léegi lii leen bëgg a nguur gi def ak lii lañ bëgg mu def diw ak diw ak diw ñoom lañ war a gis ne ñoom ñoo ameewul lii ñoom lañ war a def lii ak lii ak lii foog naa ne kon ñun ñun mi nekk une autorité war nañ ko yëg te moom Omar Diallo tam wax na ne moom eh, fi mu ne nii moom am na lii lor na ko lor because mu ne tax na sa ba mbokkaam yi sa ñu bëri mënuñoo nelaw ngir lii so moo tax nag tey oo na ni eh, journaliste yi oo na oo na taskati xibaar ne xibaar yi daje am nañ daje ak moom te moom moom Omar Diallo lim dëgëral mooy moom lii ay tuumal kese la moom deful dara loo xam ne eh, àndut ak loi man la seen mbok Lamine Ndiaye Paradise TV Banjo gannaaw bu ñu bàyyeekoo ak xibaar boobu leen ñu dem ci beneen xibaar euh, korité gi ñu passé neexoon na lool looloo waral ki nga xam ne moom mooy Ma Sané mu taxawal li nga xam ne moom la ñu tuddee guddi euh, sanse ci biir guddi sanse gi nii ñëppay génn si ñawkat yi dañoo génn si tey tamit ñi nga xam ne tamit dañ soppa sanse dañoo génn si pour ñu euh, teewee li nga xam ne moom mooy guddi sanse Euh, loolu waral ki nga xam ne taskati xibaar la fii ci biir kër gi ñu gën koo xamee ci Fatima Yooyo saar teewe woon na guddi euh, sanse mu indil ñu xibaar bi ñetti at ci ginnaaw kenn ci doomu réew mi di wuyoo mas am xalaat guddi sanse ci biir guddi sanse boobu lum ci mbébét mooy equity fashion ci Gambia ci biir equity fashion boobule mu ngi ci boole fashion designer yi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi tey emook ñetteeli édition bi nga xamante ne guddi sanse mu ngi koy wuyee Paradise TV ñëw na fi ngir xool gile guddi sanse ko la muy demee. guddi sanse lañ wax. moo tax ma sañse nii ndax man maa yaay xale yi di xarit xale yi maas nag jël guddi gi yëpp teg ko suma loxo boo seetee guddi gi yëpp maa maas ñoo ànd def ko ñoo ànd yóbbule tey mu jël yëpp teg ko ci suma loxo bàyyee ma guddi gi ba mu jeex tag waaw may ko ci ñaanal la guddi gii yan na koy def at bu jot ñëpp ñu fekkee ko te bu kenn manqué di ko ñaanal liggéeyam bi yan na ko yàlla barkeel ndax lii lu mu ci jublu rek mooy bégal xale yi. man maa ngi tudd Aïssatou Olda waaye nit yi ñu ma xamee Oldest Creation parce que suma liggéeyukaay noonu laa ko tuddee Oldest Creation waaw. waa designer la man tamit dama dee ñaw ah bés bi moom dëgg dëgg toolu na si lu rëy si man parce que maa suma broda la you know is a friend waaye xam nga dañ so close yaaga nañ si aar bi yaaga naa si aar bi so moom it mu ñëw si aar bi xam ñun ñëpp daal ñu nekk benn ñun designers yi yëpp soo ku xewle yëgal sa morom mu ñëw teewe soo xam su ma yëgalee foog ma ñëw ma xam ne daf ma teg place xam nga waaw moo tax ma ñëw uyu si waaw. <laughs> guddi sanse bi nag wuyoo na turam ndaxte nekkoon na guddi goo xamante ne guddi gu am maanaa la guddi gu neex guddib ndaanaan lu ko waraloon nag mooy artistes yi nga xamante ne ñu ngi fii ci réew mi ku ci mel ni Vipa ak yeneeni artistes ñoo waraloon neexaay guddi bile. ñi nga xamante ne ñoo organise guddi sanse ginnaaw waxtaan bu ñu am ak ñoom lu ñu wax mooy 2019 dinañ ko gën a yaatal ndax mën cee boole fashion designers yu ndaw yi nekk ci réew mi ngir ñu mën a wone seeni liggéey Léonie AS TV nu ma leen ko waxee woon si njëlbéen Fatima Yoyo Sarr moo ñu indil xibaar bi waaye dafa mel ni Léonie Manga moom moo ñu jottalil boobule xibaar ci beneen xibaar yi um, wàllum jënd ak jaay benn compagnie bu mag foofu foofule ci réew yi Germany te day yëngu ci defar moto ñu gën leen a xamee ci Volkswagen ñoom wax nañ ne ki nga xam ne moom mooy seen njiit bi. Euh, takkader yi nekk foofule ci réewi jàmman yi dañ ko teg loxo ñu dem seeti xibaar bi suñ sukkandikoo si Munich seen prosecutors si wax nañ Robert Stegler dañ ko diteen li waral nag ñu teg ko loxo mooy dañ ragal ne suñ ko tegutee loxo moom mun naa dugal loxoom si gestu bi nga xamante ne ñu ngi koo def jëmale ko si coow bi nag Volkswagen atum 2015 Volkswagen nangu woon nañ ne dañ jëfandikoo illegal software yoo xamante ne nii pour sàcc Amérique seen émission test muy Diesel engines yi le loolu indi woon coow bu rëy si compagnie bi seen taarix bi da indi woon ay jafe-jafe sax si compagnie bi nga xamante ne mooy Volkswagen mi nga wi dee liggéey ay moto prosecutor mu ne ki nag wax nañ ne Stadlas ñu ngi ko arrest te nag teg loxo bu ñu ko teg amul dara li nga xamante ne muy jógee ko si Amérique seen autorités yi waaye wax nañ ne daal dañ ko teg loxo fekk mu ngi si këram sax foofu la si Ingolstadt foofu lañ ko tegee loxo tey jii si suba si muy lundi si suba lañ ko teg gannaaw bi nga xamante ne ragaloon nañ ne suñ ko tegutee loxo mun naa sabab daal gestu bu ñu nekk di gestu mu am ay gàllankoor. waa ñu dem ak euh, yébaane yi ñu dellu see ñu ànd ak xibaari tàggat yaram ak xibaar yu njëlee ca bitim réew. Has happened. Will happen. May happen. Is happening. Let us know. Send an email to info at ptv.gm. Call us 611-1666. ci xibaar yi tàggat yaram Gambia Volleyball Federation ñoom ñu ngi ñaan nit ñi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy private sector pour ñu jàppale leen si xaalis bu takku pour ñu mun a bokk ci jongante boobu war a xew ci Algeria Euh, niki weer bi ñuy euh, si wax nañ ne nag seen yaakaar ci nguur gi dafa tuuti lool looloo waral ñoom ñu génn si di ñaan nit ñi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy private sector bi pour ñu jàppale leen ci xaalis bi xibaar bi lu mu jot a wone rek tamit mooy Gambia ñoom ñu ngi bokk ci groupe bi ak euh, réew boobule di Nigeria teg ci tamit ñu ngi bokk yeneen team gën koo xamee ci Tunisia ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Madagascar. Eh, ki doon waxtaan ak Paradise TV News ñu ngi ko gën a xamee ci Alaaji Cissé ñu déglu moom ak kàddoom. demoon neen gisante kii ministre ministre of youth and sports ñu waxtaanaa moom waxtaan neen waaye ay wax yu am maana te moom tamit waaye lu ñu am luñ ñu lu ñu digal am dig ab dig ab dig ab dig nañu parce que wax nañu digga am yenn seen dem waaye am na am am na solo te te waaye dina make am government am def def neen dara Ah, paski um, ah, team bini um, ah, du team Gambia volleyball bona team government bila team um, Gambian uh, wa uh, la lolo to wa bu dem am dem uh, at national team boobu laa wane waaye Gambian si waaye ñoo tiim team bii nii te yaakaar bu ñu jox man mu am naa si yaakaar xanaa yaakaar bi tas du tasee tamit waaye du beeta parce que am lii lii daf loon am dem dem fi ab qualifié nañ fi waaye ñetti ñetti yoon waaye wax dem play ji ñu toog waaye bi de ñu ne ah, ma xaalis amut ba bii yoon waaye wax nañoo try ah, bum bum fiil ba na ministre bi wax moo lu wax am na. loolu moo di woon xibaari tàggat yaram ci xibaari bitim réew ah, ci xibaar bu daw yaram foofule ci réewi Japan dafa mel ni tey jii ñaari téeméeri nit am nañ fa ay gaañu teg ci tamit ñetti nit ñàkk nañ fa seen bakken. gannaaw bi nga xam ne yëngu-yëngu suuf mu ngi fa xewoon lii nag mu ngi xew si seen benn tund bu ñooy ooyee Osaka ñu seeti xibaar bi. lum ndaw ndaw lu waree moog ñetti nit ñoo faatu bokk na si benn xale bu ndaw mi faatu gannaaw bi nga xamante ne nii suuf bu yëngatu moo am foofule si Japan Japan seen dëkk buñ gën a ràññee si Osaka lii mu ngi xew tey si suba suuf bu yëngatu bii nag rëy na lool te tey loolu si suba la xew. lu waree moog ñaari téeméeri nit ak fanweer ñoo fa dëkk ba wala seen airport bi tëj nañ ko seen train yi nga xamante ne ñoom ñoo dee dem tamit train yi neewatuñ ci daw lu ko waral suuf bu yëngatu woowule waaye facteurs yi nga xamante ne sax ñoo nekkee boor yooyu facteurs yooyu sax nekkatuñ liggéey li ko waral mooy yëngu bi nga xamante ne la suuf bi yëngu benn xale bu jigéen bu am juróom at moom tamit faatu na fa yeneen ñetti nit tamit yi nekk si benn facteurs yi bokk na si benn mag wax nañ ne tamit ñoom ñoo faatu gannaaw bi nga xamante ne sax euh, fi ñu nekk moo daanu te wax nañ tamit am na yeneen nit yi nga xamante ne ñu ngi trap maanaam ñu ngi càng mënuñoo génn si béréb yi nga xamante lañ nekk lu ko waral mooy euh, néeg yi ñu nekk ñoo daanu fu mu nekk nii nag mu ngi indil nañ ñi tiitaange ak jafe-jafe foofule si Osaka Japan nag wax nañ seen tund woowule nekk na tund bi nga xamante ni daal wàllum suuf yi yëngatu dafa dee faral di xew te nag su fa xewee daf dee indi ay jafe-jafe yu métti sax indi ay rolaange doomi aadama yi nga xamante ne ñoo nekk foofule si seen dundin si seen bakken si seen dëkkuwaay ak naka béréb yi nga xamante ne nii sax fa lañ jee dundee. loolu mooy suñ jeexintali xibaar fii ci Paradise TV waaye balaa ñoo dem ñu seetiwaat suñu boppi xibaar yi. ñooy TAF Africa Global. ñaari nit faat nañ leen foofule ci coow bi nga xam ne mu ngi jóg ci Faraba. jëwrin bi ñu dénk wàllum bitim réew wax nañ ne commencé nañoo càmbar kii nga xam ne moom mooy Gambian ambassador bi nekk Morocco waa réewi Gambia wane nañu solu yu rafet ci guddi sanse bi nga xam ne mu ngi passé bu yaagut Gambia Volleyball Federation ba léegi ñu ngi ut ndimbal ñetti nit ñakk nañu seen bakken foofu la nga xam ne mooy uh, Japan gannaaw bi nga xam ne suuf baa ngi doon yëngu. ñi jàpp ci boppi xibaar yi ñooy TAF Africa Global. ñu ngee jaajëfal la ñu jàpp ci xibaar yi fii ci Paradise TV man la Awa Guèye booy maa leen di jox di daje ba subaam jaama